ci dibéer gi fii ci kër sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul gi jàkkaarloo ak jumaa ji kuréel junnatul liman nazamaho dalal na daayira bu bàyyeekoo Touba La Rochette ñoom itam ab moto bu am doole moom lañ daal di ñëw tàbbal ci liggéey bile. maa ngi tudd Basirou Ñing daayira Touba La Rochette euh, dañoo ñëwoon andil sëñ bi euh, benn moto pompe de trois cent mètres cube heure euh, ñu doon di ko def si turu euh, président directeur général monsieur Adel Salab ak doomam Kamal Salab maanaam pompe bi li waral ñu andi ko fi mooy euh, li xew tuuba événement bi pour dimbale comité bi si mbarum mbirum pompage bi donc c'est une pompe diesel d'une capacité de trois cent mètres cubes avec tuyauterie bi mu àndal donc estimé à une valeur à peu près de trois millions sant di sant ndax euh, euh, liggéeyal sëñ bi yàlla moo la si dimbale di kaddu cant rek lañ si am kaddu cant rek commission sociale bi nga xam ne nii ñoo doon recevoir liggéey bu am solo bi bàyyeekoo ci Touba La Rochette ànd ko ak mbooleem taalibe yi ñoom itam ñu ngi soññaat bu baax a baax mbooleem askan wi ngir ñu mën a roy ci jëf ji nga xam ne nii Touba Rochette. andil na leen ko. ñi ngi yëkkati kàddu ci turu junnatun liman nazamahu bi nga xam ne sëriñ bi moo ko samp mu lëkkale xisbu ya tubaa ca kanam ak maire bi tubaa kàddu yi nag kàddu yi cant rek la ak ngërëm yu jëm ci waa tubaa la Rosette ci jëf jure ji nga xam ne jëf nañ ko muy moto bi pompe bi nga xam ne andi nañ ko teg ko ci loxoy sëriñ Basiru Ñing mu indi ko jébbal ko sëriñ bi mu teg ko ci loxoy junnatun ngir ñu war cee liggéey ci ndox mi nga xam ne moo sonal lool waa dëkk bi ci jamono yi ñu mu nekk nag machine bu mag boo xam ne barab yi gën gën a jaaxle ci liggéey bi mën na faa liggéey liggéey bu am solo waaye mu nekk jàppeet ne mu nekk ab soññi ci mboolem koo xam ne nii waa Touba Lorset taxawee ba topp toppatoo lu jëf ji toll nii andi ko fii war nga ne mën a taxawee ba indi fi lu mel nii ba leneen loo xam ne mën naa ta mën naa am njariñ ci biir liggéey bi. wa jannatan li saalikin muridi wa